xam naa ne daal xool naa ba xool mais am naa lu ma métti ndax yaakaar naa ne kii warut a représenté drapeau Sénégal jële ko réew bu réew xeexal réewam rëg-rëg nekkoon benn Dubaï boo xam ne nii Dubaï la représenté ah am naa lu ma métti de ci influenceuru Sénégal ku mel ni grand Boubacar Diallo naa ko Ousseyn. waaw Cheikh Sarr naa ko. grand Boubacar Diallo li ma ko bëggee woon. mu dem di dugal samay dóor mu daanoo lu ne. dugalul ma def. Boubacar Diallo du fa dugal turam daanu bi. barke alxuraan dama la ko xool paasam yëpp dugal na ko ci. Cheikh Sarr. non Cheikh Sarr man. mel na di audio di mbalak. waaw ah. mais mais li ma jàmm la. Aba moom. non du ma non du ma tudd turam. kooku moom bugguma woon sax tudd turam. këram laa jëm nii moom laa. non bu bu lox loolu nga ne. këram laa jëm nii West Foire laa jëm su ma ko fekkul dem RFM bu yeboo mu pare. ndax def naa sama benn alerte ojo ne mu génnee vidéo yi génneewul def naa sama plainte contre x këram laa jëm bu ma paree ci moom xam naa fu may dem su ma paree ci moom xam naa ci kan dem ñëpp dinañ génnee vidéo yi ku ko ci génneewul dinaa la duma duma yi métti man maanaam dégguma nga ne nañ dem laa ilaaha illallah li ma métti ci rëg-rëg yëpp ci ñoom laa koy fajee yàlla mën de léegi damaa caaxaanatul maslaatuma ku ma tooñ ma duma la king boxing laa def king boxing waaw abaa bu xaajal ma bul dóor bul dóor bul dóor mais mais mais li ma gën a métti man Aba fi ngeen naawee ci air bi la jël mais Aba Aba bi baaxul def Aba moo dagg affaire bi yëkkati ko. nga nekk ci air bi. xam nga yow xam nga tourné woo noonu. loolu tourné woo Aba ah, dem jël ko def ko multi remise. ah ah, ah, ah. ay air bu yëpp. loolu day jeex. damaa maslaawul neexaluma kenn. lii nag yaa ko mën a dindi de. dinaa ko dindi yaa mën a dindi lii. tey la lépp li leer naa ko gis moo ko gisee rek taalal téléphone.